bés bu ñu jagleel lii di mbirum théâtre ci àdduna bi wërngal këpp ñu ko doon màggal tey jii di ñaar fukki ci weeru mars tax na kii di Khoudia Diagne nekk directrice des arts daal di ko teewee. waaw dañoo ñëw fii Sorano tey euh, pour célébrer journée mondiale du théâtre journée la boo xamante ne àdduna bi yëpp dañ koy feete donc euh, Sénégal desul ci ginnaaw comme yeneen dëkk yi da koy célébrer ak ay acteurs culturels am. bile édition ñi daal di ko jox comme thème jàmm. ji nga xamante ni askanu Sénégal yitewoo na ko. donc bi ko acteurs yi proposé mu nekk loo xam ne dafa am solo ñu tamit ñu ànd ceeg ñoom gis ngeen certainement tamit prestation yi jaar yi jot jaar yëpp dañuy wax ci euh, ci waxu jàmm parce que jàmm si la lépp xaj. donc théâtre tamit rôle la muy sensibiliser population yi mais di sensibiliser tamit euh, autorités yi pour ñu sàmm li nga xamante ne Sénégal li gën a am solo ci ci dëkk bi euh, loolu la am maanaam jàmm donc euh, encore une fois day wane rôle bi culture am ci. Euh, ci développement wu dëkk mais rôle bi culture am tamit ci stabilité wu dëkk. journée mondiale du théâtre nekk bés bi nga xamante ni dañ koy màggal fépp ci Sénégal taxoon na mbooleem kuy artiste wala ngay yëngu ci wàllu théâtre joxante ngeen rendez-vous fii ci théâtre national Daniel Sorano ngir mën a célébrer bile bés. donc dans l'éducation am na théâtre tey dem na ba am bac théâtre mais ñun tamit donc dañ leen soxla benn partenaire la ñu am mooy la direction des arts te direction des arts gouvernement bu ñu fekk fi gouvernement buy dem bàyyi leen fi donc c'est des techniques mais amuñu moyen yu fi jaar maintenant le président de la république ñu ngi koy ñaan mu walluñu ci ñetti point benn bi mooy un fonds pour le théâtre parce que waa comédiens yi dajaloo nañ def seen plan stratégique bu saay su bëggee mun nañ ko ko jox mu xam lan la ñu soxla ak fan lañ dem ak ñaata lañ soxla beneen bi mooy statut bi nga xam ne moom la ñu validé il deux semaines écoutez vous imaginez ñi ñu ñi dund ba dee bu ñuy dee bu ñu feebaree dañ leen di ketal bu ñu bu ñu amee ay problème social dañ leen di dimbali ñuy tàllal loxo ndax lan parce que statut boobu kenn kenn kenn kenn voté ko woon voté nañ ko validé nañ ko mu des nag pratique ko pratiqué boobu nag état bi ñu ngi ko ci xaar ci affaire boobu beneen bi mooy